jërë ngeen jëf mbokk Actubuzz TV jërë ngeen jëf mbokk internet yuy safo di seetaan Actubuzz TV open press fils de Balla bi nga xamante nii doon na ko def ni que ni fële sa géejewaay mu nar a jàmmarloog ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Goro Sock moom rek euh, si biir open press ba dafa mel nii dafa am coow bu fa daal di antu gannaaw rekk bi nga xamante ni benn lutteur bu ndaw bu doon bëreek Laurent Ndiago ñu gën koo xam si Bou Siteu moom Bou Siteu nag moom moo daal di joteeg ak ki nga xamante ni moom moo ay ak guy gi. ñoom nag euh, bu ñu jotee euh, yàgg na lool waaye nag euh, moom bu Siteu si d'après li ñu daal di gis daf ko fekk fi nga xamante ni moom mooy sa open press ba daal di pompe à ki nga xamante ni moom mooy guy gi ba mu ko pompe à nag guy gi si bët la ko daal di pompe à coow li daal di bëri lool moom guy gi mu nekk foofu rek di xatraayu nar jotee ki nga xamante ni moom mooy Buur Siteu ba sax lutteurs yu bëri daal di dal si kaw kaw kii di euh, Buur Siteu ba Balla sax moom tamit euh, coow li euh, si kanamam la ko fekk moom tax sax mu daal di dal si kaw ki nga xamante ni moom mooy Buur Siteu naka ni loolu nag si la guy gi daal di taale otom rek daal di quitté fi nga xamante ni moom mooy sa open press ba mu mel nii rek ba tey. polémique bi ñuy wax ci 100 pour bi ba tey da daal di nay euh, des carrément parce que chaque jour rek da ngay daal euh, gis euh, li nga xamante ni moom mooy ay coow yu ndaw a ndaw ndaw yuy làmboo si seen diggante ñoom mbër yi kii nag guy gi la ak benn mbër bu ndaw bu dëkk tamit Guédiawaye mu gën ko xam si Bour moom moo daal di jotee ak ki nga xamante ni guy ak guy gi ba daal di koy pompe à gaz ci bët tey si open press fils de balle fële sa Guédiawaye Balla Gaye 2 euh, ñu gis ko fële sa open press ba bi nga xamante ni moom la euh, Fils de euh, daal di doon def tey ñoom ñaar nag bokk écrit mu mel ni rek tey dafa bàyyi lépp lu muy def gannaaw bi mu jógee ci combat bii lay ñëw dooleel ki nga xamante ni moom mooy Fils de Balla booy sax côté organisation bi sax moom moo doon organiser li nga xamante ni moom mooy open press ba Fils de Balla Gorosok nar a bëre bi di le 14 fële sa arène nationale